asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu waa woon ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam maa ngi tudd madame ami fay di chef de service départemental de l'action éducative en milieu ouvert ñu gën koo xam ci ay moo ñu bokk ci direction générale de la protection judiciaire et sociale mu mu bokk ci ministère de la justice donc euh, di nuyu ñëpp di leen jaajëfal di lancer message ci gàmm gi muy édition 2024 euh, AEMO nag ku ko wax xam ko xam ko ci wàllu xale yi xale yi nga xam ni dañuy am jafe-jafe ak jafe-jafe bu mu mën a doon muy jafe-jafe yoon muy jafe-jafe këyit muy jafe-jafe njàng ak yeneen ak yeneen buñ ko yëgee war nañ cee taxaw jàppale xale boobu ba mu mën a tegu ci yoon donc euh, ci kaw loolu moo tax gàmm gu ñëw dañuy mettre en place un dispositif de prise en charge avant ñu naan ko poste avancé bokk kook ay nit ñu bari euh, lu à travers la sous commission gindi nous ci la ñoo ko njëkk a euh, euh, def ñun tam depuis 2009 ba léegi ñu ngi ciy donc di lancer message population bi parce que gamu bu ñëwé xalé yi ñom itam yenn saa dañ leen di faté ta xalé yu bari yenn saa ñu ñu ak seen waju bu boba yi euh, jafe-jafe day am dafa na ku gamu si nga àndoon ak te gisoko gamu sa gamu du neex mba bu it dina dina am lu mu lu ci lu ko gàllankoor donc ñu ngi ñaan population bi di ñaan wa Tiwaawoon yeen yi nga xamni yeen ay dalal gan képp koo xam ne dangaa àndal nag xale sa doom réer mbaa sa sa ki nga àndal xale te mu nekk xale ñun teg nañu benn dispositif de prise en charge ci zone des mos des des des mosquées ñu euh, donc ci ginnaaw euh, maison des hôtes ñu ngi foofu ci wetu santé ku laaj képp ku laajte waa santé fan lañ ne buñ la boo ñëwee ba foofu rek di nga ñu gis dinañ toppatoo xale bu fa ñëw dinañ la euh, accueillir toppatoo la naxtaan la laaj la say waajur bu dee am nga seen numéro téléphone mbaa nga xam fan nañ dëkk ñu dem a gëstu ba sa ba ñu tegaat la ci loxo yu leer donc euh, ñu ngi ñaan ñëpp population bi ñu jàppale ñu ci loolu nañ ñu jàppale ci loolu bu baax a baax di ñaan délégué de quartier yi surtout ñoom à travers monsieur euh, Dergen pas Dergen ñu ngi lay ñaan yow mi nga xam ni yaay président euh, des chefs des délégués de quartier ñu mobiliser wu képp koo xam ne sa doom réer na na nga ñëw côté zone des mosquées euh, muy première muy site principal bi mais ren ubbi nañu beneen site ci wetu garage fii rajo euh, Albayaan nekkoon ci biir foofu it ñu ngi fa teg nañ fa benn dispositif boo xam ne xale bu ñëw dinañ la toppatoo ba teg la ci loxo également ku euh, police mu ngi fi ñaan nañu bëgg nañu cette année ci ku kenn ne fa koo xam ni bu xale bi ñëwee dina ko dalal dina ko toppatoo dina ko teg ci loxo yu wóor ba ñu delloo ko ci ay loxo waajur cette euh, caserne des sapeurs pompiers également zone boobu it également képp ku mu gën a jege boo fa yóbboo sa xale it dinañ jéem a gëstu jéem a toppatoo ba dina am kenn kuñ fa teg koo xam ne dina toppatoo xale yi ba ba ñu tegaat ko seen loxo waajur ñu ngi ñaan population bi di leen ñaaxaat rek bu kenn delloo bu kenn gàdde xale xale boo xam ne dafa réer bu ko bàyyi sa kër parce que boo ko bàyyee sa kër rek lool nga ay waajur ñu ngi leen di ñaan képp ku yore xale na nga ko génne surtout koo taseel ci waa koskaas boo ko laajee waa commission gindi koskaas san lañ ne ñoom dinañ la indi dinañ la teg ci yoon ba nga ñëw nga déposer fa xale yi xale bi nga mën a dem ñu ngi leen koy ñaaxaat ak bépp waajur boo xam ne ñëw nga pour jël si sa xale na nga indaale sa carte d'identité li gën a wóor parce que it xale ñun tam duñu joxe xale noonu parce que bëgg nañu xale boo xam ne buñ koy teg ci loxo dañ koy teg ci loxo yu leer loxo yoo xam ne bu subaa dina am traçabilité dina nañ xam ni diw mii kat moo ko fi jël si diw mii nii lii mooy numéro téléphone am diw lii mooy numéro carte d'identité am pour plus de sécurité parce que ci mbooloo la ñu jëm ci mbooloo mu bari la jëm donc di ñaaxaat waajur yi képp koo xam ne booy ñëw xale boo ko mënul euh, bu mu amul badge nga takkal ko ko na nga ko defal numéro téléphone maa nga jàngal ko numéro téléphone loolu dinañu gën a yombalal ñu mën a gis ay waajur ñu ñaaxaat population bi rek di leen ñaan ngeen jàppale ñu ci liggéey bi bu kenn téye xale ci kër bu kenn téye xale ci kër yi parce que yenn saa yi chaque année dañuy am cas yu mel noonu di leen ñaan képp koo xam ni gis nga xale rek na nga koy yóbbu ci zone des mosquées nga indi ko fa bu dee garage moo la gën a jege nga yóbbu ko fa bu dee police moo la fa gën a jege yóbbu ko bu dee caserne des sapeurs pompiers donc ñu ngi leen di ñaax numéro yii it képp koo xam ne sa doom réer na nang mën nga cee woote boo woote boo wootee ci numéro yi di nga ma jot muy 77 181 64 00 également mbaa nga wootee ci 76 683 34 39 yooyu samay numéro la ku ci woote di nga ma jot lé beneen numéro sama collègue bi muy Xaadim Seen képp ku ci woote muy 78 568 84 81 képp ku ci woote it dinañ la jël si mbaa dinañ la orienté bu dee sa doom mu ngi ci bërëb bi ñu ñu mën laa informer donc ñu ngi ñaaxaat population bi bu baax a baax ñu jàppale ñu ci yéen ay tax ñu mën a réussir poste bi di leen ñaan bu baax a baax ngeen jàppale ñu ñu ngi woo bàjjenu gox yi ñu ngi woo ndeyu daara yi ñu ngi woo képp koo xam ne rek personne influente nga aatiyaawoon nga jàppale ñu ci liggéey bi mu yomb ñu jàppale xale yi ba ñu mën a teguwaat ci jàmm jërëjëf